Fofana, le centre de la haine contrée. Ça va revenir avec euh, Aïda qui mène à la boîte. Le renvoi de la défense, Smoadenga. Avant le plus direct, il avait été euh, auteur d'une superbe reprise de, de volet. Simon qui déborde, Simon qui ah, prend le dessus sur ah, ah. un Singo. Simon, et c'est euh, Odilon Kofuno qui concède le corner. Elle a fait un match correct hein, ce soir au niveau de Kosuma. Défensivement, très costaud, très solide. Voilà. Allez, plus que 7 minutes à tenir, 7 minutes au temps, 6 minutes au temps réglementaire pour les, les Ivoiriens. 6 minutes pour forcer le Gaspard du côté euh, ivoirien, du côté nigérien plutôt. Corner avec Moses Simon, le premier poteau. Et le renvoi de Gisley Collin. Ce sera un nouveau corner euh, pour euh, les Nigérians. Téléma aussi qui se prépare à faire euh, son apparition sur la pelouse. Le troisième corner du Nigérian à l'espace d'une minute. C'est un héros quoi qu'il advienne. Ainacho au corner qui est tiré. Non, pas du tout. Malheureusement, non, pas du tout. Et qui a certainement envie de participer à la pause. Il y a deux changements qui sont préparés du côté euh, ivoirien avec les entrées en jeu. Ibrahim Sangaré ah, euh, de Kafou. Ah non, finalement, ils sont pas apparemment. Ah oui. C'est euh, Onyeka et Zaidou qui sortent, qui vont céder leur, leur place à. Ouais. Adjana Mofi. La télé Mofi et. Euh, Oluwayezu, c'est ça. Rosé. Alibo, un milieu de terrain et un attaquant. Là, l'entraîneur. Nigérian va tenter le tout pour le tout et la réaction derrière de Benas Saïd qui va sortir Seko Fofana, même sur l'écran. Tout comme Sébastien Colombe également qui va. Et en finale, même en huitième de finale face au Sénégal, il n'y aura pas sans penalty lors de l'épreuve de Ils veulent bien très loin du en carton et la refuser de porter sur la, civière. Ça, c'est le nouveau règlement. Lorsqu'on fait entrer la civière, on profite de cette addition en On revoit le but. Le centre, Tadega et le geste acrobatique de Sébastien Haller qui a connu la maladie, le cancer, on le rappelle. C'est pas tout. a la chance d'arriver dans le haut niveau. pas évident en Angleterre. il revient à Dortmund là on lui diagnostique un cancer il se bat contre le cancer il a réussi à il revient avec avec Dortmund il revient également avec la sélection pour être euh, un homme décisif.

kon dinañ leen xam ni kii tëdd si jàmmalaay mooy Muhammadu Rasulullaay amul foto ay sab nu Mariam mooy buntam mooy taawam moo doon Jésus démb ngeen di degg yàlla jël ko Jérusalem yéegal ko bi dinaa la boole si beneen wàccuwaay kuréelu Mahdi yu te boo ñëwee moom moo demandé woon doon se doon surgal ak seen te yàlla Isaa demandé woon mais dafa ñëw yàlla def ko muy taawuk Seydina Limaamu mm-hmm. mu nekk ko nag Seydina Limaamu nekk ko nag kalaa yegg si si man dina jaar si yaw ba pare moo waral appel bii ñuy ouverture bi di Cambérène deuxième jour bi tay la taxawoon woo ji aji bu danga yàlla yaa maxsaral insi wal jinni ne inni rasulullah ilaykum kon ñu ngi jégalu aji bo daa yàllaay yaa maxsaral insi wal jinni inni rasulullah Muhammad الإنس والجن وواو إني رسول الله دفني جمعة سيدنا محمد سيدنا محمد baa ñu tass xarit dara la ñu bëgg di ko def ci Seydou Koungheul sama noon da laa laaj. léegi la ñu la si kaale bii di suwar bi yow mi ngi si yaaw. mama doy woy jërëjëf ñaar Muhammad sëñ Bamba na aw fa saa مدو واو يبن ولا سيبك بلا قوار تيار سمطرون نحن maa mu commencé nii rek. junior junior dama doon la bàyyi xel na ñëw ci bété bi tuuti. Assane day wel yaawa woote bi. Assane ñu bàyyi rek nga woote macha allah ndax rek mënta ñàkk woote bi mënta ñàkk dama dem ba si munti ba mu ne ma dimbali ma rek muy dem bu dee benn daal sax bàyyi ma fii lañ mën a yem dafa xam ne woote bi mu daaw doy day sax day ne sunu xol yi fee àndoo dëkkal baay lay yónneen woote bi mu daañul daañul doy ay sax day ne waaw waaw ñu xol yi feeñ ñu àndandoo dëkkal baay mam woote bi mu daañul doy day sax day ne